fois ci alquran su ma fëttul waaye dama ciy jukki rek jukki dem ba ci suuratul xujura jukki ci juróomi yaa ayyuha allazina amanu fas yéene ko partagé ak yéen bi ci njëkk mooy yaa ayyuha allazina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli wattaqu allah inna allah samiun alim وارفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ñetteel bi mooy yaa ayyuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi nabain fatabayyanu an tusibu qawman bi ننتبه ويا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فتليتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم جرومي يا أيها الذين آمنوا إمام ويا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يكف أولئك هم الظالمون Imam, xam nga bu yàlla demee bay wax jullit ñi pour ñu defar seeni comportement juróomi aaya ñi ma fi jàng ginnaaw bu ñu ko tasee ku nekk ku nekk ci sa dëkkandoo war nga di jëflanteeg moom jëf ju baax réew mi war nañu am cohésion sociale xam nga bu ñu demee bu ñu demee ba Sénégal Sénégal fii réew mi ñu ni quatre-vingt-quinze pour cent yëpp ay jullit lañ te jullit ñi mënaguñu jëriñoo alquran problème am na xam nga bi ci njëkk te yàlla wax ko nee ñi ma jiitee ci seen kanam bu leen bët bi fi coronavirus ñëwee ñëpp médecins yi leen doon déglu bu amee nañu déglu ñi xam ci wàllu diine problème mu pénc bu amee nañu xool ñi seen xel rafet ñu jiital maam yi ñëw dem après damay laal seen rabu ndëpp moo bëgg ñu am lu ñu lu ñu lu ñu yóbbaale rek bu ñuy dem moo tax balaa ngaa wóolu nit xam ko kenn du ko joxee noonu noonu noonu sayiduna muhammad dafa am waaju tudd labib ibnul asam nabi foo ko fekk ku onglet soccu peñe day nekk ci poosam benn nit pour mu koy peñal bopam boppam Labiid ibnul Asam Labiid moom la yéefar yi dem corrompre corrompre corruption yag na ci dëkk bi corruption yag na ci aduna àdduna Labiid ibnul Asam mom la yéefar yi jox mare mi ko lenn lañ soxlo mooy jox ñu karaw Sayyidina Muhammad xoolal mu ñëw tiim sànni bi tam peñe bi tiim bopam peñe ko karaw gi topale toppaale euh, peñe bi ñu mu dem yóbbu doomi yi ñu njabar ci Sayyiduna Muhammad yaram bi yëpp jël lañ ko njabaree jël lañ ko ci kenn mbokk yi nañu xalaat ni bis dina ñëw lu mu bare la bare la bare la bare la bare la bare suufa loo waxata waxata waxata waxata waxata yàlla dina la laaj kulluhum aatihi yowma alqiyamati njabarante bi jaru ko defantelu bon bi jaru nga bu ñu bëggee suñu société jag imaam maa ngi bàyyi yeneen ñeenti aaya yi boo paree jël ko tas ko xam nga ñetteel alladi harrama allahu illa bil haq yonent bi ne bu ñu demee ba jamono ji nga ni nit dafay jël paaka jam morom ci lu dul dëgg bu njëkkoon bu njëkkoon jaastu bu njëkkoon jamono bu njëkkoon xam nga lan moo daan rey nit paaka da daan jël paaka jam nit mu dee gis nañ ko fi ba tàyyi wala nga rendi ko mu dee mais gis na tuuti jamono ji xam nga lan mooy rey nit big big nga fay journaliste mu ñëw ci deru nit di ci wax tiitre ko def ko à la mu tas ci àdduna bi ñëpp lii ko te ngay wax dara du ci def kooku di misère loolu ba xëy fa bu ko bu ko rey Serigne Cheikh Tidiane si sama sëriñu sëriñ nee na balaa ngaa wax ni reyu ma nit xaaral ba dajeeg yàlla mën la reyu nit parfois nga wax nit xam nga xam nga ñaari wujju peccoo ngeen baal ma jàngalee tax waxuma moo fi am na jàngalee tax ñaari wujju peccoo kii nekk ci kër gi am doom kii amul doom xëy na ñoom ñaar ñoo bokk ndaay ak baay seen ñaari jëkkër yi bokk ndaay ak la ñu bokk bu mu ci mën a doon ñoom kii am na doom rek kii doomu kenn ki wala jabaru kenn ki doomam kenn du ko yónni ci buddee ko yónni demal ca taabal ca xam nga boo waxee loolu gox dëkk bu tëddee lalam nelawul mën na xëcc buntam sangoo mbàccam mais nelawul léegi kooku di misère loolu di ko misère di ko misère ba xëy faat mbokk bi bu deewee kan moo ko rey paaka rey na nit bi waaye wax ju nañ ci bàyyi xel qatlu nafs allati harrama allah illa bil haqq ba ci nit kii ñëw di la laaj di la laaj amaana xëy na dafay dafay dafay ut lu mu yóbbu këram nga wax ko wax ju naqari imaam yi xam nga ñoom am natt imaam yi ku réer ci koñ ku am soxla kër imaam lañ lay xëy na am nañ ko amuñu ko mais ñoom sañuñu lool mais nit ki ñëw di la laaj nit ki ñëw di la laaj yàlla nee na sayiduna muhammad wadduha wallayli iza saja ma waddaaka rabbuka wa ma qala wa lal axiratu xayrun laka min al ula wa la sawfa yutika rabbuka fa tarda alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka aamilan fa agna fa amma al yatima fala taqhar wa amma as saila fala tanhar wa amma bi nicmati rabbika fa haddis mbokk yi li ñu yàlla jox ci wërsëg ku ci xaj nañ ko ci partage mais nit bu ñëwee bis ba soxlaam nga jànni ko soxla bi rek poids nga ñëw jànniwaat ko tegaat ko beneen poids gaaw ñun suñuy kilifa diine dañu am bu ñu baaxee ñoom la am bu ñu bonee ñoom la am ñun bu ñu baaxee ñoom la am ñun suñu bonee ñoom nañu wax xanaa li jeexal nga wax de boo bëggee màggal guddi Sayyiduna Muhammad màggal kenn la ñuy laaj rek kenn kenn la ñuy laaj xayrul xatim bàyyi Basak Baara maam yi dënna Cheikh Makiyu bàyyi Serigne Moustapha Moussa bàyyi maam yi Serigne Moustapha Mbacke moom la ñuy laaj ni ko kan mooy Sayyiduna Muhammad mu ni mawliduhu mu'azzamu My imani said.